asalaamaaleykum waa Cité Senghor maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi nuyu tout d'abord sama jigéen bi di sama doom di sama jarbaat di ay Aysatu Jaxate à travers moom maa ngi nuyu ñi mu àndal ñëpp ak ngi topp ci ginnaawam maa ngi nuyu ASC bi aussi leen xamal ni dégg naa seen wax naa leen tontu maa ngi nuyu koñ bi yëpp daal parce que guddi na te jigéen ñi war nañu defare reer mais li ma leen di promettre d'abord moo di lii ngeen def tey dama leen a may beneen boo xam ne bi dañuy teel a ñëw ñun ñëpp ñu fekke ko sama doom ji itam di ab sax dama koy may benn ngir jóge fi fekk ko fa mu nekk neexe yàlla wax bi gaa moom jarul guddal bi ma gërëmee ñépp du ma répété dafa am lu nu tax a jóg man association bi ma yor alliance bi ma yor dépassé na senegal te dara yëkkati ko lu dimbali waa senegal loolu moo ko yëkkati te bu soobee yàlla di ngeen ci xam dara man mënumaa naxe du ma wax lu ma dul def du ma wax lu ma mënul lu ma wax dama koy xool ba mën ko ma door ko wax parce que yéen ñi ñëpp ay la ngeen te rus naa dajeeg yéen bu ëllëgee ngeen naan góor gi la mu fee waxoon ak nangam nangam lu ma ci naa dinaa ko def lu ma tële nag mënuma ko waaw sant maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp bi ci des nag moo di bi ma jëlee alliance bi teg fële dafa am lu ñu dëgmal muy 2012 waaye bu présenté day dana nu ko fal te am nañu yaakaar ci ni dana présenté ñun ñëpp nu ànd ak moom takku te fal ko mais nag fal Ablaye Wade du ay sabar du ay tàccu ay carte la dama bëgg seen liggéey bu commencé léegi ndegam commencé wul woon ci dajale nit ñi ak seeni carte ñi nga xam ne 2012 mosuñu wote te 2012 danañ am 18 ans na ngeen leen génne wutal leeni i carte bu ngeen ma ko waxee man danaa ko topp topp ñoom ñëpp ñu am seen carte bu ñu wotee carte mooy fal lay Wade ay wax du ko fal ay sabar du ko fal man nag li ma mën ci sama doole danaa leen ko jàppale incha allahu bu fekkente ni yàlla may nanu bakkan danaa leen jàppale sama kem kàttan parce que gis naa ni ay jigéen ngeen ay góor ngeen ay xale ngeen mais ñu takku ngeen te gis naa ci seen waxit ñoo xam ni man war naa leen a mën a wóolu kon loolu rek moo ci amoon solo wóolu naa leen wóolu naa seen njiit bii di ay Aysatu Jaxate lu mu ñëw ci man wut ko de bu ko bu ko indiwul jox leen daf ko faa fekkul waaye lu mu ci man bu ko fekkee danaa ko jox mu indi leen ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm nag encore le cadres libéraux parce que ñoom lii mooy wane ni ñoom li ñu nekk caaxaanuñu ci waaw parce que am nañu yeneen i liggéey waaye bi astu wootee te ñu xam ni lépp benn la dañu jóg fi mu ne dañoo wër a wër a wër ba sonn téléphoné ma door a ñëwaat sama kër ñu ànd ñëw ne ñoom ñoo ma fi waroon a jiitu mais dañoo wër ba sonn ñu téléphoné bi ni dañu réer xamuñu place bi moo tax ñu guddee ñëw ñu guddee ñëw gi ñu ngi koy jégglu bu baax a baax a baax bu ñu sañoon tàkkusaan la loolu moo ma moo ma puusit nag ma may leen beneen tàkkusaan boo xam ne bu sooba yàlla trois heures dana fekk ñëpp ñëpp fekke ko lu waaye bëgg a wax bu keroog di ngeen ko wax aaye ASC bi danaa leen dimbali digg naa leen coté naa ko def waaw dinaa leen dimbali dinaa leen jàppale bi ci des nag maa ngi gërëm du ma fu ma dem dinaa ko wax moo di Njaga Fall bile ak Cheikh Ngom parce que ñoom ñooy sama tànk ñooy sama loxo ñooy sama bët fu ma mun la yegg ñoom ñoo fay yegg ak seen wax yu baax te ñoom ñaar ñi ñëpp ba ñu jàng fekkewu ma ko majeur na ñu ma door leen a xam kon li ma def ci ñoom néew na ndegam def naa ci dara donc baax la ànd ak man ak yéene ak bëgg kon maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bi ci des nag moo di dafa am ku wax fii koo xam ni bëgg naa koñ bi xam li mu doon ci man muy ajanee njaay male toog dama bëgg koñ bi ci boppam particulièrement aystu dama la dénk nee njaay parce que néye mooy man maay moom néye bu bëtam xonqee sama bët xonq bu kontaanee ma kontaan seen kër laa yaroo rakam bu góor magam bu góor ak man ñoo doon ànd ba ñu amee ay sept mu jur doom tudde ma ko comme ma tudde maa ko ngénte ji woon daara jëfa ànd ak néye mii daara lañ ko ngénte ji woon sàmba jebere sàmm moo ko may ku ne xam na ak ni ñu fokke seen cosaan pour Gawlo jël doomam ab taaw tudde ko ku dul Gawlo jafe mooy directeur financier bu Viverso ma bëgg ngeen jàppal ma néya dimbalil ma ko waaw ku ko def de sama xol dina seet waaw bu leen ko jàppe leneen lu dul man waaw na ngeen ko jàppe lu dul man ba nuy ànd maak moom mi ñun ñëpp ay xale lañu waaw feebar dab ko ma bëggoon leen ko dénk ngir yàlla ngeen jàppaleen ma ko dimbalil ma ko wax bi yëpp daal loolu laa defe ne mooy wax bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla nag yàlla boolewaat na fi dajale ah ba li ñu bëgg lépp ñu def ko mais na ngeen bàyyi encore une fois xel ci 2012 ca këram lay toog génne doomi jàmbur ñu rey ñii ñii ñu jàpp yóbbu ci kaso bi bu leen ci kenn boole lii ñu wax teguwul fen bëgg a falu rek la mais dama bëgg nag pouvoir bii ñu di ko wut ci ngor pouvoir wax naa leen ba tàyyi ni yàlla moo koy joxe kenn du ko foqati ku yàlla ni yaay falu yàlla danga nga falu te coow du am diggante Ablaye Wade ak Abdou Diouf fii la nu fekk ñu def jëf yu rafet kii gañe kii félicité ko ni ko gañe nga ma keroog ba Ablaye Wade waree dem ci benn conférence Abdou Diouf la yebal jox ko avion bi ne ko demal représenté ma loolu mooy affaire ngor waaye jël mag moo xam ne mat na la maam nga di ko saaga di tudd di tudd turam bañ a tudd présidence ga institution bi ngay bañ a tudd pour bañ a dem kaso loolu baaxul mag xale du ko saaga mag xale du ko foye mag xale du ko toroxal loolu day man maa ngi leen koy dénk yéen xale yi nga xam ne li ngeen nga bëgg a ànd a man de doo def kat yarawun ci loolu maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ku ma fàtte nag na nga xam ni doomu aadama laa mais sant naa ñëpp encore une fois astu maa ngi lay gërëm bu baax maa ngi ci sa ginnaaw maa ngi ci sa kanam loo nekk maa ngi ci ak yow su soobee yow parce que xam naa ni jigéen ju dëggu nga jigéen ju am fayda nga kon loo nekk dinaa la joxe maa ngi nuyu ñëpp wasalaamaaleykum parce que nit ku ne bëgg naa am gan gu mel ni Pape Bakar Diagne ñi mooy membre ñi fondé mouvement takku jóg mouvement takk jóg benn mouvement la bu juddoo fii ci Gelawaar Cité Senghor mouvement bi nag bin juddoo yàggul waaye nag fi ñu toll mouvement bi jéggi na dayoo ndax ku ci nekk yaa ngi ci bëgg a bokk Pape Bakar nag ñu ngi koy lancé benn message message bi mooy ñu ngi ci ginnaawam ñun ASC Gelawaar ak mouvement takku jóg parce que bu nee mouvement takku jóg ASC Gelawaar moo ko waral ASC Gelawaar moo fonde mouvement bi dañu créer suñu mouvement pour jàppale suñu ASC dañu créer mouvement pour dundal suñu ASC dañu créer mouvement pour dundal suñu quartier ñun képp koo xam ne yaa ngi jàpp ci jàppale quartier bi ñu ngi ci sa ginnaaw